acca salaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ne ñoo di safoo di seetaan site bi di people 221 nuyu nañu leen bu baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fi parcelle unité benn bâtiment rek moom moo fi daanu ay 10 jàpp 11 ba jamono yi ñuy àddoo ngeen di teewlu sapeur yi ñoom ñu ngi fi génneeguñu guñu ci kenn nag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci biir kër gi rek ñu ngi ci biir ba tey ñun xamuñu ñaata blessé wala am na kenn koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam information yooyu nag amaguñu ko information yi ngir mën leen a xamal lépp li nga xamante moo fi xew ci bâtiment bi gis ngeen nag sapeur yi ñoom ñu ngi fi taxaw ay 10 ba tey ñoom ñu ngi fi waaye def li nga xamante ni moo di seen liggéey waaye comme ñu ni koy defee ñun waa people 221 actualité bu amee rek ni ñuy kontaane ngir toppal leen xibaar yi ngir ngeen mën a am si rek lu leen leer waaye fi la ñuy fi la ñuy desandi rek taxaw xaar ba xam sapeur yi lan lañu fi jëlee waaye ñu ñaan yàlla rek kenn bañ ci ñàkk bakkanam ndax mbir mi doon na loo xamante ni lu doy waar la waaye dinañu wéy di topp information bi yéen bu leen puus bu leen randu baax na